mbir mu doy waar xewati ci Touba Assulo faatu na garabu olof la nu ko jaaw mun naan ko génn àdduna borom këram àndi na ci seede mu nekk nag lu doy waar loo xam ne xewati na ci dëkk bu sell bi du Touba muy Assulo ginnaaw bi nga xam ne rek naan garabu olof mu nekk nag garab goo xam ne sunguf la woon moom Assulo nag ginnaaw bi mu ko naanee googalee garab nag ci la amee ay jafe-jafe ba ñu ko yóbbu ko hôpital ca loolee nag ca la ñàkk bakkanam bay sëriñ loo di di borom kër ci Assulo ñu teewlikaat mooy borom këram bi siburu tëdd ci la jóg tàngalal ñu tàngalal ma ndékki ma ndékki léegi bi mu paree mu ne dafa siburu ma ne ko siburu mun heure bi hmm. mu ne ma ah kay daal ñu yëf yi gën a continuer wax ne sax na damaa naan garab garabu ndoxum siti daal hmm. ay ay sunguf la léegi mu ne ma damaa naan garab moo ma jàpp hmm. loolu daal moo ko jàpp muy wocc di wocc di wocc ba ba ñu yóbbu ko hôpital bi ñu ko yóbbu hôpital mu ne fa fanaan fa ma xëyee ma dem ñu ne dañ koy rajo biñ ko génnee ndekete booba day am yaakaar naa am na daal booba daal defe naa ne andi andiwaale wul agro ñu génne ko ne woote ne ana ñu mu àndal magam bu jigéen dem magam ñu ne ko góor ñu ne mu ne leen jëkkëram a nga fee ak magam bu góor mm-hmm. ñu ñëw bi ñu duggee léegi ñu ne nu a ànd ak asuloo mu ne waaw mm-hmm. ñu ne yow borom këram mu ne waaw asuloo dina wàcc na liggéey ni di lañ ci am wax nañ ne li ko faat moom wax nañ génne nañ ko ci résultat yi wax nañ eh, biir bi daal moo yàq organe yi eh, rien problème mu rien rien yi ak yooyu daal lañ wax waaw loolu dañ moo moo lakk loolu danañ waxal moom génne résultat yi daal wane ko ma daam ñeent fukki at ak juróom daal mm-hmm. à peu am na ñaari doom ay seex loolu laa ci am jóge Dakar ñëw fii anaka boobu xawma lu may def sax mhm. waaw garab gi daal loolu la ak ndoxum si kanam moom la ko sëriñ bi jox quoi nit ñi ci seen bopp nit ñi daal ñoo war a yeewu waaw ñoo war a yeewu nit ñi daal ñoo war a yeewu te bàyyi nelaw gi mhm. waaw loolu rek laa ci wax mhm. nit ñi seen bopp daal ñoo war a yeewu Sénégal daal mbir mu doy mi xew ci dëkk bu sell bi di Touba soxna Assulo daanaa garab goo xam ne dañu koo jaay mu mujjee ñàkk bakkanam